Tata Aïda Mbodj Mame Biram wàcc sa prépa masawu ñu ngi leen di wax génn ñun lu nekk Macky Sall def nañu ko yaay bu nekk jooy na suñuy doom dee yi ñu ne ñu amul leen ci droit lan ngeen bëgg ñu def ko kenn waratu la toog kenn waratu la tëdd kenn waratu la feebar kenn waratu la tayal na ñëpp jóg na ñëpp jóg ñu wax ne Macky Sall du fi amee du fi amee il faut que élection élection élection élection élection buñ ñu perdre loo temps buñ ñu perdre loo temps léegi rek laay dénku ñi ñuy wax folie ñii ñu retenir dañ di xeexal buñ leen kas parce que Macky Sall na këru diine yi tas na société bi tas na ku bokk ndey ak baay tas na ay frère tas na leen yéen journalistes yi kon nag bu ñu xaajale ñun opposition bi nañu dëgante xam ne ñoo bokk li ñu bëgg li ñu bëgg mooy askan wi benn baat la am benn baat la doon xaar muy baat mu ni ba wote ba jot wote boobu nañu ko jox nañu concentré wu ci loolu te bu ñu xuloo bu ñu xeex bu ñu ngañante ci suñu biir ku nekk na jàpp ne moroomam nawleem maa ngi leen di gërëm di leen sant vive la FN4 vive la FN4 FN4 FN4 merci beaucoup Tata